24 sortie bi en tant que telle euh, bon voilà euh, c' est pas le plus important mais le plus important mooy après la sortie da ci danga nga cee dégg critiques yu bëree bëree bëri. dama mhm. jàpp ne critiques yooyu yu pertinente la te yu am solo la. Mhm. yu am solo la et c' est important pourquoi parce que dama gis beaucoup de journalistes sénégalais par exemple dañu dénoncer le fait que Ousmane Sonko moom moo taxawoon wax ne moom euh, médias tubaab yi. Mhm. du du wax. suñ bokkee moom table sax pour. buñ bokkee ak moom table sax moom mu génn bàyyi leen bàyyi leen donc su ñëwee tey wax ci les les les journalistes sénégalais wala boog les observateurs en général. seen du ma sax droit seen devoir mooy rappeler loolu. Mm-hmm. te critique boobu dafa am solo non pas. non seulement pour ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy déglu mais moom pour moom ci boppam. jëriñu ci pour dama dama. Euh, li ma li tax ma wax ci mooy. Mm-hmm. dama ci seede ñaar yoo xam ne dama ko fekk. Mm-hmm. Ousmane Sonko fii la ñëw ci salle bii la woon. Mm-hmm. fee lañ toog di def émission bi ñu defee émission pare ñu taxaw fii di waxtaan. mu ne moom Ousmane Sonko El Malick Ndiaye mi ngi taxaw dafa décider que ni heure bu waree wax ci média wu tubaab avant mu ci wax. day préférer wax ci média wu sénégalais yi. ba pare mm-hmm. ah. Ah. doog wax ci média wu tubaab bi. Mm-hmm. parce que moment boobu TV5 ak Jeune Afrique ñoo ko sollicité woon. Mm-hmm. mu ne je préfère venir à Walfadjri wax fi li muy wax ba pare su ma paree doog wax ak média wu tubaab te ni ma ko defee Walfadjri boo lëggee suñ ma sollicité xëy na dinaa wax ak ñeneen. ma jàpp ne bi muy wax ak RFI ak France 24. la veille def na une conférence de presse wax ak les médias sénégal mhm. loolu laa gis. Mhm. beneen bi mooy dafa am benn euh, interview bu ñu defoon ak moom fii ci Yoff. y avait journaliste yu bari yu fa nekkoon ci Yoff lañ ko defee woon. Mhm. mu waxoon ca bis boobu la wax ne moom les médias tubaab la euh, pas médias tubaab médias wu français yi. dootul wax ak ñoom pour quoi pour pourquoi mu am solo parce que dafa jàppoon ne dans la affaire Ousmane sonk Adji Sarr dañu ñëw ñoom médias yooyu ci réew mi ngir yàq deram Mm-hmm. yàq deram moo tax ñu jël Adji Sarr jox def ko interview mu wax lu ko neex te moom muy ñu ko possibilité mu wax ci mm-hmm. mu ne dootul wax ak ñoom te comme ni ko Serigne waxee mm-hmm. même bu duggee ci saal ñoom ñu nekk mu bàyyi koog ñu dem et il avait ajouté et, et boobu je me rappelle man je vais waxoon naa ko directement boo demee ci vidéo yi di nga ko gis que ni loolu du démocratie un homme politique mënul taxaw naan du ma wax ak média sàngam ak média sàngam boo xoolee vidéo yi di nga ko gisaat mais dafa am moo di ne il faut que ñoom ñu présenter ko excuse par rapport ak li ñu ko def maintenant la question que je me pose Cheikh Tidiane mhm. mooy est-ce que waaw ak ni mu ko waxee moom les médias là dañ ko dañu excuser wu je ne pas mhm. lan moo tax mu décider léegi wax ak ñoom c'est son problème c'est pas le mien mhm. mais en tout cas je trouve que les journalistes sénégalais principalement ils ont bien fait de lui rappeler ces faits mais rappeler ces faits là duñ ci am rappeler ces faits dafa am benn suñu benn professeur journaliste bu ñu doon wax ne journalisme bu ñu doon wax ne sooy analyser des faits politiques di wax nit ñi loo xam ne xam nañ ko c'est pas la peine hmm. or le fait de rappeler que Ousmane Sonko moo waxoon ne du wax ci média français ba pare dem na wax ci ñoom xam nga ko kii xam na ko Sénégalais yi xam nañ ko mais l'analyse bu ñu ko jéemee pousser tuuti dañuy xool lan la ñuy retenir kon finalement ci le fait que mu décider wax ak tubaab yooyu Cheikh Tidiane mën na ma ci moo di dama gis un Ousmane Sonko boo xam ne wa xëy na ak moom ak ñi ñi wër ak ñi wër ak moom ils se sont rendu compte peut xëy na que ni Ousmane Sonko mii c'est un leader politique et non un activiste comme ñoom Mass Mboup yi du activiste parce que activisme mooy ki nga xam ne moom xëy na aspiré wul diriger réew donc moom mën na am des positions tranchées comme dit Souley euh, euh, Babacar Justin Ndiaye des positions par parfois même bernées que ne doo ci génn quand par exemple on te ils te France dégage c'est une position ferme mhm. <laughs> France dégage mais Cheikh soo bëggee jiite réew mel ni Sénégal mhm. tudd Sénégal mhm. ak relation yu ñu am ak France réew ci àdduna mi soo taxawee ne France dégage point day poser problème ak euh, day poser problème day poser problème te li am solo ba am solo mooy soo nekkee un leader politique nga tudd Macky Sall nga tudd Ousmane Sonko nga tudd Khalifa Sall nga tudd keneen li nga ameel sa réew mooy li Ablaye Wade doon wax ay partenariat gagnant gaña mooy partenaire yi ngay am mu tudd France ak mu tudd Mali mu tudd Chine ak mu tudd beneen l' mooy partenaires yooyu bu mu nekk partenaire boo xam ne comme France gii ñu nekk actuellement da lay noot mm. donc le discours man bi nga xam ne moom lay xaar ci un homme politique pas de me dire France dégage maanaam mhm. su ma nekkee président français yi dañu fiy jóge parce que ñu fi jóge mhm. mhm. mais c'est un discours boo xam danaan la bis bu ma nekkee président France duñ ne ko dégage mais suñu ay relation ñun dañuy gagné voilà voilà dañ koy xoolaat dañuy dañ koy xoolaat voilà dañ koy xoolaat c'est important dañ koy xoolaat et je crois que quelque part su ma dee déglu Ousmane Sonko mu wax France 24 ak RFI wax ne du ñu remplacer la politique c'est pas de dire na fi France jóge waa Russie ñëw toog. parce que kon da ngay remplacer benn nootkat par un par nootkat mm-hmm. mais c'est de se dire nañu fexe ba Afrique. Sénégal ak réew yu mel ne Sénégal am ay partenaires yoo xam ne ñoom dañ ciy gis seen bopp bala keneen di ci gis seen bopp dafa am nuance entre les deux moo tax d'ailleurs bi ko Ousmane Sonko waxee da nga gis activiste yu mel ne Semi Keba yu mel ne Nathalie Yam. Euh, ak même d' autres personnes yu commencé di dal ci kaw Ousmane Sonko. parce que peut-être ñoom le discours bi ñu doon xaar ci moom. mooy le discours qui dit non suñu relation ak France bis bu ma nekkee président dagg tàppit amatul. Mhm. loolu Cheikh Tidiane un homme politique bu la ko wax ci suñu réew yii. waaw da lay révéloo. waaye nag Moustapha. voilà Moustapha nga baal ma leen na benn affaire dafa am. Mhm. mooy que il faut que suñu homme politique yii. Mhm. muy njëm réa ñu maanaam ñuy wax réalité euh, maanaam bii am. Mhm. xam nga. Mhm. dafa yomb. Mhm. dafa yomb dafa mel ni football. yomb ne. Aliou Cissé wax na def lii ay nii nag ni ngay def rek voilà nii nag <laughs> tey yow nekkuloo <laughs> nekkuloo foofu à est-ce que comprendre nga xamuloo dégg xamuloo loolu moo tax gis nga non booy booy wax da ngay xam nooy wax surtout parce que bul nekk man bu ma nekkee lii lii non déedéet xamaguloo boo fa nekkee looy def xamaguloo lan nga fay fekk mhm. réalité wu terrain mhm. loolu laal suñu on politique yëpp mhm. lu erreur boobu la ñuy def ay bu ma demee nii bala ñuy wax ñu ko voilà balaa ñuy wax dañuy xam lan mooy état mécanisme état ay mbóotam ay mbóotam am na ci ay yoo xam ne munoo ci dara bés boo ci demoon par force di nga def loo xam ne moom la Macky Sall di def ay ay yooyu ay réalité la beneen bi may kiyee ci euh, maanaam gi nga euh, waa Moussa Ba mm-hmm. suñu homme politique yëpp même sax ñu ñii sax ñu ci bari dañu am complexe su média français oui qu'on se dise la vérité dañu ko am suñu politiciens yëpp ñoo yem ku ci nangam nangam préféré dem wax ak France 24 RFI moo leen gënal ñëw wax ay waay yii nii mm-hmm. loolu mooy loolu moo indi loolu mm-hmm. moo indi problème boobu léegi boo ñëwee ne leen bët euh, kii parce que coup de fil ñoom. Mhm. dañ lay doo benn coup de fil. kii euh, Moustapha nekk wal Walfadjri ne la boo man dama la bëgg a invité mais ko euh, bu France 24 sa waa ji. bu mhm. France 24 lay jëm. Mhm. noonu la di nga jóg opportunité yi ñoo mel noonu. même sax même sax sportif yi. oui mas naa ko fi wax benn jour Cheikh Tidiane ma ne man aw ma benn problème. aw ma benn problème ci le président de la République wala un homme politique sénégalais mu wax. ak média bu ko neex parce que àdduna mu sëriñ mi ko wax sax àdduna moo tëddee noonu. àdduna moo tëddee tey un homme kii te di que du ma wax RFI du ma wax France 24. Mm-hmm. man man je crois que. te soxla toujours communication àndul àndul ak kii. àndul sax kii mais li am solo mooy Cheikh li nga wax c'est-à-dire que autant da ngay accorder ñooñu importance di wax ak ñoom <coughs> autant accorder la même importance au médias yi nga xam ne ñoo ne si réew di wax ak muy benn mm-hmm. ñaareel bi dafa am ay mbir yoo xam ne su amee ci sa réew wax kooku waa réew mi mm. bala nga koy wax ak keneen mm. dama gis démb Mansour fay ci TikTok d'ailleurs euh, ci euh, benn ah, entretien waaw bi mu def bi mu def benn entretien ci ci ci tv mais la mu fay wax mais mais jurul wax ci télé tubaab bi. ñun la ñun la conseil ñun lay waxal. na ñëw Walfadjri gi wala Sen TV wala TFM wala feneen wax ko ko ñi faatu dañ leen di indemniser ñi ci jëlee ay gaañu ñu def nangam ak nangam mais loolu. te kenn faatuwu ci France. oui suñu ay Sénégal amul sax ay suñu ay wax la nañ ñu ko wax ñun d' abord buñ paree ñu wax ko ku leen neex. y' a aucun souci par rapport à ça mais li nga wax noonu dafa am te te te luy jafee dindi beneen bi mooy. Euh, gis nga François Hollande euh, Ousmane Sonko mas na wax ne moom gëmul réalité du pouvoir ma ne ko nag réalité du pouvoir am na. <laughs> waaw moom moom mas na wax ne réalité du pouvoir dafa jàpp ne ay tappale rek la. Mm-hmm. ay tappale am na ci nag. parce que parfois les gens. waaw def yenn tappale yi ils te du pouvoir bis ci duggee di nga xam ne nangam. mais pouvoir loo ci mën ci dégg am na ay réalités yoo xam ne. man mii xaw ma ko. Mm-hmm. keneen xamu ko tant que demoo nekk ah, nekk dans l'exercice du pouvoir. mais dafa am yoo xam ne man dama jàpp Cheikh c'est des fondamentaux yoo xam ne nga ne ci pouvoir nga bañ cee nekk chaque homme politique Sénégal daf sénégalais daf ci war a déterminer wax ci lu leer. te bu leer président du ko wàcc. xam nga mooy lan mooy France lañ doon waxtaanee ñu yem ci exemple boobu. que ni France partenaire u Sénégal la. Mhm. peut xëy na mooy son premier partenaire wala bokk na ci partenaire yi njëkk. Mhm. kooku buñ ne laa bis bu ma nekkee président tey ci. ajjuma ji suba ci samedi ji dina fi jóge ay nax la. <laughs> ay nax la ay nax la maintenant maintenant fondement li fondamental mooy wax mooy li may woowee ay fondamentaux mooy chaque homme politique sénégalais tey am na droit wala obligation wax ne man de bis bu ma nekkee président suñu diggante ak France baat bi Cheikh Diagne wax sax <coughs> dañ koy xoolaat. voilà mm. c'est vrai. luñ ko xoolaatee nag luñ ko xoolaate bi wuñ tekk leneen lu mm. suñu njariñ d'abord. voilà mm. très bien. américains yi ñooy wax America first. loolu américain yëpp loolu wax ah. America first mooy Amérique d'abord mm-hmm. lu ñuy wax doo ko wax Sénégal dañu war am président boo xam ne danaan Sénégal d'abord mm-hmm. Sénégal ba pare mm-hmm. soo dee négocier nga ne Sénégal ba pare soo négocier gis na lii Sénégal gagné na ci keneen ku ci gagné baax na mais ñun nañ gagné pare problème bi ñu am nag ñun actuellement ak suñu ay dirigeants depuis année yu bëree bëree bari mooy suñu partenariat yi Cheikh Tidiane boo ko xoolee et loolu on n'a pas besoin de Ousmane Sonko pour le savoir soo ko xoolee da ngay gis ne français yu ñu ko séqal ñoo ciy gagné ba doyal. Mhm. bàyyi muy siit tuuti ñun ñuy tàllal suñu làmmiñ pour mu dal ci. autoroute bii ci la bokk. Mhm. suñu euh, kii ñu koy sax euh, communication yi ci la bokk ak yeneen ak yeneen liñ ciy jël di ko fa di ko wëq di ko yóbbu ci seen réew yi moo ëpp fuuf liy des ci Sénégal loolu moo tax président bu fi ñëw nga dégg mu naan la pays beewu Sénégal yow indi jële naa ko ci lii yóbbu ko ci lii mhm. te te Sénégal yi duñ ko gis li ko waral mooy. Mhm. ñi nga xam ne ñooy produire la richesse dans ce pays. muy ñi ne ci téléphonie ñi ne ci entreprise yu mag yi ñi produire la richesse. Mhm. sénégalais yi moomuñu ko. ñoom moomuñu ko wallaay. ba ci marché donc buñ produire richesse boobu. Mhm. dañ koy jël yóbbu ko seen réew. moo tax à chaque fois ñu naan la. Euh, xaw ma PIB lañ koy tudde xaw ma ngi mi ngi euh, xaw ma PIB c'est ça mi yokk di yokk di yokk. Mm, mm. te Sénégal duñ ci gis bopp seen bopp. li mais ci média français yi. Mm-hmm. mais est discours Ousmane Sonko bi duñ ko gisee si angle boobu rek gis ne kii dafa bëggoon a dindi complexe boobu ñu am ci média français yi wax ne ne ñii nii média lañ comme ñii rek buñ toogoon ak man tey jii nii damay génn bàyyi leen a wax foofu moom foofu moom dafa taxawoon. Mm. bañ a def comme Macky Sall Ablaye Wade ñoom loolu ñu nga xam ne média français yi rek mm. na lii mais dafa dem ba. Euh, euh, mm. mujj demaat demaat si waaw non c'est que gis nga dama yor. boo amee complexe su média français yi dina ñoom sax dañ lay manipuler. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ lay manipuler dañ lay wax loo loo xam ne gi nga yow mi yow comme ni Moussa wax loo xam ne yow waxoon nga ko wax euh, fii. Mm-hmm. xam nga parce que ñoom information la ñuy wut. seen intérêt la ñuy wut. dégg am na wax yoo xam ne ça n'intéresse pas dafa am nag les français dafa am lu jar a bàyyi xel hmm. moo di ne les médias français yi nga xam ne ñooy ñëw en Afrique en général c'est pas des médias comme Walfadjri c'est pas des médias comme TFM je m'explique xam nga Walfadjri quand il fait son travail ñun yóbbaale wuñu nu ma ko mën a waxee sax baatu Sénégal hmm. ñun yóbbaale wuñu kàddu Sénégal di dem hmm. France 24 RFI dañoo bokk ci benn groupe bu tudd groupe France Média Monde mhm. ñu baatu France lañu yor mhm. voilà RFI France 24 baatu France lañ yor su RFI ak France 24 wax loo wee Idri euh, Idrissa Seck wala Ousmane Sonko wala keneen na leer ne naqariwul France merci seen intérêt et loolu seen intérêt et loolu les hommes politiques en Afrique dañ koo xam mhm. dañ koo xam-xam goo xam ne parfois euh, nga dugg ci politique ànd ceeg sa fulla bu mat sëkk yaakaar na tu n'as pas besoin de da ngay toll benn moo xam ne ab réalité bu lay dab la. Mhm. parce que da nga naan est que finalement on peut se passer de ces médias yoo xam ne ñoom baatu France lañ yor d'ailleurs soo xoolee Mali. Assimi Goïta def na ko. Mhm. soo demee waa ji nekk Burkina def na ko. bi ñu amee ay ñux-ñuxu xol ak waa France. Mhm. RFI ak France 24 lañ dàq. surtout. parce que baatu France la ñuy démarrer. c'est pas des médias comme comme ñu ñun ah. du ñoom dañoo bokk ñoom dañoo c'est-à-dire mënu leen boole ak RTS parce que RTS euh, média d'état boo xam ne euh, xëy na demul di defal Sénégal propagande fenn. Mm-hmm. ci biir ci biir moom fii la koy defee exactement ñoom dañu am dañu bokk ci groupe bu tudd. groupe France Média Monde. RFI ci la bokk. France 24 ci la bokk la rajo Monte Carlo Doualiya ci la bokk. Mhm. ñooñu kàddu France lañ yor di ko tasaare ci àdduna bi. Mhm. c'est important. ce qui veut que tey gis nga bu ñu intéressé woo ci dara na la leer na intéressé na France. waaw. na la leer et parfois sax d'ailleurs les journalistes qui travaillent la ba dañuy am souvent ay jàppante ak le gouvernement français notamment bu ñu waree nommer yenn dirigeants yeeg yooyu. yenn saa yi ñu sant leen euh, loo xam da ngay doo ko doo ko dégg parfois ñoo la RFI ñu ngi grève wala ñu ngi def kala mm-hmm. pourquoi parce que dans leur mm-hmm. travail de tous les jours mm-hmm. parfois ñu ñu ñu la direction wax leen loo xam ne les professionnels de l'information yu fa nekk duñ ko nangu ko nangu donc le fait que les euh, euh présidents africains di wax ci médias yooyu c'est pas gratuit c'est vrai c'est pas gratuit du tout mais l'essentiel pour man Cheikh mooy li nga wax bi ñuy démarrer mooy mën nga wax ak ñoom amul problème parce que mënoo nekk ci àdduna bi de du ma wax ak si yéen même même même la rajo chinoise laa nekk Dakar mënoo bañ a wax ak moom parce que àdduna mooy doxee noonu mais nag Sénégal d'abord. d'abord waaw loolu la donc waaw Fatou. Sénégal d'abord rek Fatou euh, Marouba Fall écrivain. di auteur la collégienne. wax na ko ci seen émission di di décrire di décrire li nga xamante moom mooy.